koy tënk ci yatti daay yi nga xam ne moo nu wër daay gu jëkk gi mooy saa su nekk ñu ne ci loo xam ne lu ñuy rëccu ëllëg la ñaareel bi suñum xelit na lapp ci loo xam ne lu ñuy tiit la te gisuñu ko walla xamuñu fu mu nekk waaye ñetteelu daay ga te moo jur ñaari daay yi moo leen taal mooy dafa mel ne danoo fàtte suñu bopp àgg na ci nit sax sexatut aw ñam mu saf ci moom dara am na ñoo xam ne danañ toog bëccëgu lëmm duñ bëgg a lekk te dara jotu leen am nañu nit ñi ñuy gunge bis bu set du dara ci ñoom lu fi jàdd jàll rek la te moo ne yàlla waxoon nag ñun ci alxuraan ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen amuk suñu borom gi te fas yéenee ne jàkk teg seen tànk fi mu ko teglu xam ne ëllëg daf leen di àtte moo te ngeen a fab seenub gis teg ko la ca kanam la ca kanam mooy ëllëg rek ndax ëllëg soo ko waxee ku xamut rawati nag ëllëgi daaw ëllëgi déwén da koy jàppe ay léeb te la indi daaw mooy indi déwén yaa ayuha alladina amanu attaqu llaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin wattaqu llaha inna allaha xabirun bi ma taamalu fàtte gi suñu bopp nag yàlla ne woon na déet ndax fàtte sa bopp ku xamatul nu mu tudd ku dem ba xamatu nu mu tudd moom mënut a xam keneen moo tax mu ne woon bu leen bokk ci ñi nga xam ne dañoo fàtte yàlla te yàlla ku ko fàtte mu fàtte loola sa bopp ku fàtte ana yàlla rek mooy kan kooku xamatu fu muy teg tànkam yàlla noonu yàlla musal ca loola moom la wolof di léeb naan man ku ma nëbbu ma réer la man ku ma nëbbutu ma réer la soo ko jéemee nëbb li ngay def loolu la ci wolof jublu soo ko jéemee nëbb li ngay def mu umpale ko ba faw doonte mën naa dem ba xam ko waaye ginnaaw yaa ko siq ak moom feeg waxoo ko ko du la xamal ne xam naa ko nañ ko doon jàngalee ci xaaju wax xamu ko nga di ko xamal wala mu xam ko ba ba mu àgg moo tax wala takunu kalladina nasullah ñi fàtte yàlla fa ansahum anfusahum mooy moom ci boppam bu demee ba xamatul nu mu tudd mënut a xam keneen de ulaika humul fasiqun fisq nag mooy koo xam ne benn tànk benn tànkam ngi ci biir diine benn tànkam ne ca bitti te ba ne ca bitti moo ko gën a jubu am na ñoo xam ne lu ñuy jëf seen loxom ndeyjoor leen ca gën a jubu bu dee ku ñuy def ak tànk seen tànku ndeyjoor leen gën a jubu safaan ba am ñoo xam ne càmmooñ lañ mën a lépp moo xam mooy ndeyjoor wala loxo wala tànk bu fekkee nag ba ëpp doole nga xam ne mu ëpp doole ci yaram yi buy jëf moom lay jëfe bu fekkee daane ci biti bi na ci biir amatul solo yàlla ne woon na ngeen fexe ba xam ku ngeen doon bu ngeen xamee ki ngeen doon rek xam ku yàlla doon ci yéen moo tax bu ñu laajee nit nu muy fàttee boppam te mook boppam fu ñu jëm ñoo ànd dañuy dellu ci alxuraan rek muy dëgg gu wér ndax ku dem ba fàtte yàlla xamatul fa muy teg tànkam mooy koo xam ne buñ ko yàlla buñ ko ne yàlla nee na rek mu ne bu leen ñu waar waay bu leen ñu waar waay maanaam lenn lu jëm ci yàlla bëgg ko dégg te boo ko nee science nee na mu nangu mu nangu laa déglu ba nga àggal waaye nit dana fàtte boppam ci bu jaamu yàlla sax jaamu yàlla yi ñuy def ni julli am nañu danañ julli ba sëlmal waaye daray julli nekku fa ba gën a am solo ci julli mooy teewlu ko te bi nga koy def yaa ko ci jublu waaye léeg-léeg jiw ñoo ma ngi koy def rek julli jot na rek mu daal ne ay ca bokkoon ay ca bokkoon kooku daa mel ne bu doon moom dong du ko def jëralu ko kooku sax bokk yi mi ngi dox ay jéego gannaaw nangu na koo def gannaaw nangu na koo def mi ngi dox ay jéego yu am solo suñu borom nee na ku fàtte boppam ku ko fàtte moom ci buñ ko tuddee mu dar ay noppam ba ci jaamu yàlla gii nga xam ne nangu na ne yàlla ku ñuy jaamu la dañ ko war a jaamu moo ko santaane ku ko def am ak pay ku ko defut am ay duma ëllëg sax danaan ay ca bokkoon wala mu ne waaj a gut moom waaye ko kooku mat naa ñaanal gannaaw mi ngi mi ngi mi ngi xalaat sax naan waaj a gut bokk yi foofu ku fa àgg fàtte yàlla duutu def dara lu koy amal njariñ àdduna ak àllaaxira danga koy gis ci àdduna si mu sonn lool du fanaanal du yàndal waaye saa boo ko laajee ci loo doon xëy wala loo doon gont du la mën a wax lenn lu jëm kër la jëmul kër nag mooy lu tàmbalee ci àdduna kese yam ci àdduna képp ci lay xëy di gont yàlla noonu yàlla musal ca loola boo settantalee ay jëfam ak waxamit doo ca gis loo xam ne yàllaa ko moom yàlla moom lépp de waaye moom seddu ca cër yàlla su dee ay waxam daa am ñu ko tax di wax suñ ko dégloo tut mu noppi su dee ay jëf su ko diw ñoom nettalee tut mu noppi foofu nag bokk yi moo yaatu lool foofu nag ci lay dugg koo xam ne kii dafa yore luñ ko dénk bokk yi ni ñuy fàttee yàlla ci luñ la dénk mooy nga defee ne yaa ko moom di de di ca jëfe ni mu la soobe te baat bi ni mu tudd mooy dénk lu mu yàgg yàgg kala ko dénkoon da koy jël su ko defee nag kuñ jox mbir dénk ko ko mu jàpp ne moo ko moom daayug réccu dëgmal na këram waaye daayug tiitaange yi war na koo dëgmal ndax kat kenn rek mooy dénkaane di ko jëlaat mooy subhanahu wa taala te kenn du ko laaj lu tax inna al arda lillahi yurithuha man yashaau min ibadihi wal aqibatu lilmuttaqin mooy yàlla moo moom suuf si ak li ci kaw suuf si lépp lu ca waay am moo ko ko dénk bu yëgee ne yàlla ko ko dénk nag mu xam ne ñim ko dénk dénkuñ ko suufus kese dénkuñ ko gàncaxu kese wala ñaxum kese wala garabi kese waaye nit ñi ca lañ ñoo ci ëpp solo bu xamatul fi muy teg tànk kam digganteem ak nit ñi fàtte na yàlla fàtte na yàlla moo xam muy cër boo xam ne àdduna kese la tàmbalee yam àdduna képp ni ko nit ñi jàppe ñu fàttali ne amul luy tàmbalee àdduna kese yam àdduna képp donte am nañu ko jàppe noonu naan na nangam ji moom fii rek la yam déedéet wallahi alazim kuñ ca joxub cër ku ca amub cër jaare ko ca yàlla tàmbali na ko ubbil compte boppam bu mu koy régler digganteem ak ñi mu ko dénkoon ëllëg te am na ñu ci gis bokk yi léeg-léeg ñu jàpp ci ñooñu kenn tëral ko dutu man dara yàlla nangu la mu ko joxoon moo ne am na ñoo xam ne it dañ ne diine lañ leen fale ñoo ñoo ci ëpp wàll ndax kii ñu dénk lii mën naa bokk ci njabootam moom gannaaw nangu ne ci diine la nekk moom wërtata noppi wërtata selaw dafa war di xool ci ay gëtam lépp loo xam ne dëgg mën na diine mun a jullit la mi ngi ñëw su fekkee daa bette agsi mu ne leen agsi na nañ ci def nangam ak nangam waaye loo wax ñu ne xamu ko jotliwuñ ko ko bokk yi layob yomal xeema dana yàgg ku ko def fàtte na yàlla digganteem ak li ko nit ñi dénk tam jaar li ko yàlla dénk tam jaar ci loxoy nit ñi moo tax ku fab ab gisam akub xoolam ne ko jàkk ci yawmin azim bi yàlla di wax yawma yaqumu nnaasu li rabbil alamin kenn du sañ a bañ a ñëw wa wudia alkitaabu fa tara almujrimina mushfiqina mimma fiih wa yaquluuna yaa waylatanaa maa li hada alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan wala kabiratan illa axsaaha wa wajaduu ma amilu xaadira wala yazlimu rabbuka ahada bis bu mag ngi ñëw bis bu mag lu yàlla tuddee lu mag ñun amuñu nattukaayam nee na nit ñëpp danañ daje fenn ka leen fa woo mooy kenn mooy rabbul alamin su ko defee nag fàttali nañ ko kenn ku nekk yor ab téeréem nii ma yore kayit wii am na ñoo xam ne dañ sawar lool ci ñu ne jàngaleen iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka xasiba am na ñu ci sawar lool waaye am nañ ñoo xam ne bu dee ab rang la bu ñu yoree bu ñu toppee ci kiy wax da nga gis ñu yat yati di pat pati xam nañ lañ lañ nar a jàng baaxut lañ doon def lépp pas-pas bu ñu ko gën a xam ñépp waaye nag kenn du fa nax kenn yàlla du fa nax kenn kenn du fa dof ba yàlla nax ko waaye kenn mënu faa muusit ba nax fa yàlla bu jàngee ba àggal ñu indil ko mbooleem lam doon def nag loola taxaw ci kanamam moo tax alfudayl ibnu iyaad nee na nit wërta toog ba doon mag ñu naan léegi moom ca jàkka ji rek la fare mu tàmbalee da ngay dégg léegi nag li ma dese mooy jublu ci sama boroom nee na loola ci ndaw lañ koy lañ koy lañ koy lañ koy defe màggaale ko mu saf yàlla waaye nag ba ñu la doon liggéeyloo ñëpp wàcce la doyatoo leen cim xel doyatoo leen wax wax sakkantuma doole nga ne xaaral ma jublu ci yàlla fu mu jublu woon na dem ànd ak ñooña ndax ñooña ñooña ñooña ci ñooñu la yaakaaroon ak pay ñooña fay ko moo tax da nga dégg ku am ñeent fukki at ak juróom ñu naan il est jeune dañ koy nax kooku dee la gën a jege ci dund ndax juróom fukki at ku ko am sañ naa yaakaaraat juróom fukk waaye yaakaar ju néew kooku avenir mi ci ginnaawam suñu ko dénkee luñ ko mën a dénk na xam ne yàlla mooy dénkaane yurisu yurisuha yurisuha man yashaa min ibaadi waaye nag ñay kiilu ëllëg mooy almuttaquun mooy ñi nga xam ne ñoom mosuñoo fàtte yàlla ba di ko fàttaliku fàtte yàlla nag mooy loo yor rek defe ne yow yaa ko moom te dañ la ko dénk jox la doole ju nekk nga ne mën naa lu ne loo wax mu wéy bis dana ñëw ci kanam tuuti mu yëkkati baaraam bëgg a wax dara te du ko mën a wax ndax làmmiñ yu att na tuuta wax muy xool ñam gënoon a bëgg ñooña ñoom bu ñu ko xoolee dañuy dummoo ndax danaan xaj du mën a xef gémmiñam gi di génne ay yuut ñi ko gënoon a jege moom ñeneen la ñuy woo ñu taxawoo ko waaye ñoom dañuy daw ka ca gën a jege nag nit ki mooy soxnaam am na si ñooñ bu dañ naan loo bëgg jaale ko ci soxna si waaye bu àggee foofu soxna si la ñuy njëkk a génn néeg bi set fi ñu ko dugal dutu ko bëgg a jege moom te bokk yi nit ki bu xamoon fu muy mujj su amee as ndoole dana ko jox yàlla bañ koo jaay nit ñi ndax nit ñi amuñu njëgam bokk yi tolluwaay boobu ku ko bàyyi xel loo neex mën nga ko def waaye kenn mënu koo tegg bokk yi koo xam ne fu mu mës a jëm saa su nañu fàttali ko waaye nit ki bu demee ba xamatu nu mu tudd moom day fàtt yàlla yàlla nag réer ko waxin la lu ne yow lañ ciy déglu nga wax ca moo xam nga yore palug àdduna wala palug diine ñoom ñëpp ñoo ko bokk fooy dem dañ koy waajal duñ bëgg nga teg ci sa bët bi lu neexut a gis bu dee yoon woo xam ne sax melu nu war a mel bala ngaa ak ñu defar ko bala nga faa jaar ñu defar ko ba nga ne ndekete lépp kat baax na te dara baaxut fa ngay dem luñ néew néew kàttanu man-man danañ fexe ba ñam bañ lay taaj moom bu baax lay doon ñoom ña dëkk ci dëkk ba léeg-léeg lañ koy mos tuuti ñu taaj la ca mën a jóp da ngay defe ne dara jeexu fi te fekk dara amu fi fan yi sax dañu naan nañ toog bokk yi kuy toog day am fu mu toog koo ne nañ toog te amul fu mu toog da nga ko ne taxawal taxaw ba kañ moo tax néeg ba jaay wees jënd wees mu ne jublu maa ngi jublu sama borom léegi nag moo ma dese ree dala ciy jàpp jënd sa jaada jënd kurus jënd satala moom lu mu cay wax lan la cay wax ak ku mu koy waxal xam nga wax moom yett la ñi jàng la wax nee na yett la am na ci benn rek moo ci baax nee nañ nég ba wax weesu nga soog a wax amul njariñ wax jotagul nga wax amul njariñ waaye wax mi nga amee njariñ ba mu jotee te kay wax xam la muy wax bokk yi dundam gépp yàlla dénkoon na ko kàttan lu mu joxañ danañ ko dog wala ku tey ñu dog ko ñu dogaale laak loola nis tuuti yàlla jël ko ci loxoom jox ko keneen mu ne léegi moom day fas yéene jublu ci yàlla yàlla man xanaa du xaaliqu samawati wal ard déedéet moom ci bi nit kii man la la soxla moo tax ëllëg dana wax ak ñu bari awalam nu ammirkum maa yatadakkaru fihi man tadakkar wa jaakum nadir maanaam néeg ba màggat soog a dëgmal suñu boroom yàlla nee na ci alxuraan baat yooyu ma wax bu ne ko ci loo nekkoon mu ne awma woon jotam mu ne ko xanaa daawoo dégg kenn koy wax ak yéen mu ne daanaa ko dégg de waaye nag waaye mu ne kon léegi ginnaaw loolu alama istifham la walla point de suspension xaaral ba am tontu fa duuqu fa ma li zalimina min nasir kon boobu bokk yi fàtte yàlla weesuwut ñu dénk la boo dee ku jàppee ne àdduna li fi tàmbalee fi lay yem muy palug àdduna wala ñu jaayante ak yow su fekkee kilifa ak diine nga ngay dugg ci biir di jëfandikoo kàttan lu la neex rekk wax bis dana ñëw boo xam ne ña la gënoon a jege naan la waaw kay waaw kay ñooy jëkk a dem ñoom ndax duñ la mën a xool dañ lay ragal dañ lay seexlu bokk yi ku mës a fekkee fu nit faatoo ci jàmm dara duuta la saf ci àdduna da nga xam ne nit du dara nit du dara koo ko wax nag buy dund mu ne da nga ma ko iñaane waaye ki fàtte boppam dëgg mooy ko naan naan nekk ba doon mag doona guma ci dama cee toll dama caa toll foofu yi mu toll la lislaam soxla foofu la yàlla soxla waaye bukk yi doole jooju ñaata nit lañ xamoon ñu am doole kuñ mas a fab yëkkati la yóbbu la fa leen soob am na ci ñoo xam ne dañoo dem ba yàgg ñu naan leen dimbali leen diw ci lu mu fajaw kooku mënatul dara doole ji réer na ko yàlla ko abaloon nanguwaat na ko am na ñoo xam ne danañ am lu ñu fajaw xam fu ñuy fajoo ji waaye xel ma mooy wéradi xel ma du dal xel mu dalul xel mu daladi moo ko tee mën a lekk moo ko tee mën a naan ndax wóor na ko ne li mu def ci dundam gii bu ko yàlla fayee te yàlla da koy fay de li mu ci def lépp xam na la koy xaar bokk yi amoon na fi ay jamono yàggul dara ñoo xam ne dañ leen a bëggoon a jëlee ci ab tuubaa gi yóbbu leen ñu faju ci ñu ne aw kayit la ñuy xaar ba faatu waaw kenn war a jox kayit nag daa defee ndey dem na lu mu dem rek déedéet yàlla nga ko noote teg kooku la ko waral doole moo ko ko may doole moo ko ko may koo xam ne dañ ne ñii mënuñoo ñàkk a dem te kayit wa yaa koy joxe nga ne du ma ko joxe wala yëguma woon ne dañ koy laaj ba mu faatu bakkan boobay moom la ko yàlla di laaj duñ ko laaj keneen ndax bu joxe woon kayit ñu dem ña ca war def def ca lañ ca mën a def bu dee dund baax na bu dund ñu xam ne def na leen war a def waaye yëguma ko ndax doole waaw bis a ngi ñëw bi may jeexale mooy ki fàtte boppam dëgg yàlla réer ko mooy koo xam ne la muy wut seetu ca baax na wala baaxul xalaal am xaraam te boo ko ne doo julli kët mën naa soxanteeg yow muy jël alal jàmbur yi te duñ ko ko jox neex naqari waaye la koy dal mooy day lekk te du suur ndax la muy jël ci ñoom da koy gën a soxla te du xam fam jaar ba dem kon bokk bokk yi bis pénc mi ngi ci kanam waaye ku jaar yoon woowu it du ab royukaay koo xam ne doole rek lay jëfe moom la yàlla di wax ne wala tuti man agfalna qalbahu an zikrina wattabaa hawaa koo xam ne caay bi ja waroon a ubbi ngomb la bunt ba ubbi ko mu jàkkaarloog sunu borom subhanahu wa taala moom ci boppam mu tëj ngomb la sànni caay bi ji si géej ga ñu ne kooku du royo du royukaay ndax bakkanam dong la topp te bakkan jëmul fenn fu dul fuy fii nee na bis boobu nga xam ne kenn mënu koo mooy laa yanfau maalun wala banuun ñu di ko limal lu bari lu mu amoon wala moo jabootoon moo jabooto woon ñii nee na amu fa njariñ ndax kenn ku nekk ak bunt ba muy jaar ak passeport boppam illa man ata allah bi qalbin salim yàlla nu yàlla boole jéggal jullit bi li ko yàlla sant mooy lem santoon seydina ibrahima alayhi salaam buñ ko ne lu tax li ñuy def doo ci bokk li tax lu ñuy wax doo ca dugg wala nga jóg dem lu tax fi ñuy dem doo fa dem lu dul nekk ci lii ngay def nii rek kenn xamul lu mu doon mu ne leen lii lim tudd mooy assalaatu inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil alamina la sharika lah wa bi dalika umirtu la am ndigal lii li ngeen koy xeeb xeeb ca la moom laa am ndigalam yàlla noonu yàlla dugal ci bunt boobee yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iri almuslimina amin